salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi aji maas moo génn daan ne sumbulu dafa divorcé ak Abdoulaye Diop xaas même loolu bu amoon aji maas loolu waru la yow sumbulu sax xaritu benn bakkat la yéen ay ànd guddeeg bëccëg nga koy weer ci plateau yi di wax loo xamante ni wóoru la say yëpp ay am problème bu amoon problème amee dañuy xool nuñ koy réglé mais bul ñëw ne danoo tas bul ne danoo divorce bala ngaa wax ay information na lay leer bala ngaa xam li ngay wax na lay leer aji maas léegi nag waa Sénégal yéen ñi may déglu dinaa def live léegi léegi connecté leen jéem a jot Abdoulaye Diop xaas jéem koo jot ba xam dinañ ma ci expliqué tuuti ngeen jëw déglu ko yéen ñëpp mais Adji Mass li nga def du dëgg du yoon trahir nga sumbulu lii kenn du ko def sa xarit doo dégg tële rek na damm na di génn di toog ci plateau yi naan waaw dafa divorcé ak Abdoulaye Diop xaas kenn du def loolu loolu baaxul say jàmmoor lu ciy sa yoon sumbulu saykat la te bañkat la nit ku baax la kenn xamee ko lu ñaaw ba mu dalee sëy ba tey maa ngi def live léegi léegi.